bal dama nam safaat mu ñëw jaale si ko nan xam ni làmb day defar mais du tàqale supporter yi nan ci demee xel day jeex dan nan benn takkusaan waaye ba du tax takkusaan ay minutes la waaye maa ngi lay déy ni làmb ji du def 3 minutes kon kon yow yow làmb làmb làmb teg teg gi nga may wax kon làmb teg teg gi lay doon du def 3 minutes kii di Amadou Baldé mi tey. waaw tey te digal la mu wax loolu lay def. dama ko fekk Gambie. ma ko ndax la nga waxoon yaa nga mi du naan doon. ma ne ko ndax la nga waxoon yaa nga ca. mu ne ma arbitre bu yéexee sifflé ma paqueté ko arbitre bi. waaye kii di Modou Lo. gudd rëyul. waaye lu taxaw ci kanam jàpp na la mën. nee naa ko bi ngay dugg ci lamb. si la nga waaw im noo ngi noonu. yow im noo ne ni Seydou Ibnu noonu sac Ibnu sac de voyage la indi Seydou Medoune Ibnu sac de sac sac tey ndax day voyage yi. day voyage yi ndax day voyage yi sac de voyage la Ibnu ngi noonu sac de voyage la Ibnu bu Balla Gaye numéro 2 ngi noonu bu Lac de Guiers Ibnu bu Aziz Ndiaye Ibnu noonu Ibnu noonu de. im na noonu Seydou Soumboul ma im na ma nga sa sac de la ma daa bëgg dem aéroport ñu ànd Pape Sarr nga jiital im na Pape Sarr nga jiital im na eh, e eh, eh, bayla e bayla e waaw Ibro bëggoon naa koo jot mu wax ñaari baat dem ma jël saagu fayaas ba ndax aéroport la jëm ndax micro Cora la jëm Ibro ndax jëmul micro Cora. est demul micro Cora. mi est-ce que de ndax micro Cora la jëm Pape ci dëkk Ibro ndax demul micro Cora ndax demul micro Cora de ndax demul micro waaye ndox mi ñu ngi saraxe rek waaye ndox mi ñu ngi saraxe rek ndax jëmul ni Korokora direct bi ku faral Ama Baldé defal kër ku faral Modou defal loxo dan maa commencé woon cot sama direct bi mais defaraat naa ko yëg na bu ma sàjjee ñu xam ne Dakar Buzz bokkul ak ñoom li ngeen bëgg ci qualité image maa leen koy jox réew mépp Dakar Buzz la seetaan cey Dakar Buzz waaye cey laamu Ama Baldé Modou histoire da koy bind Ama Baldé Modou Lo Ama Baldé waaj Modou Lo waaj waaye boo fi ñëwee la jëm kay Pape Sarr ko yóbbu hymne ana national la jëm Pape Sarr ko yóbbu Ama Baldé Modou Lo tey ci arène nationale kër yaa ngay jóg Seydou daa waa Ama ñoo commencé de. ana waa Modou Lo yi seen jëlama demba ak butéel bi jëlama demba ak butéel mbiru jële demba mbiru jële demba butéel ba ngay sotti ku demba combat bee tax mu jógee France ñëw moo daan sotti Ama Baldé gàllaaj moog Ama bokk ndey ak baay Ama ci moom la topp Ama demba ngi noonu ah loolu ñu ngi def seen sarax di nuyu dim sëriñ Seye Uba borom yàpp ñuy saaf Sofi ba maa ngi lay nuyuwaat di nuyu sa borom Sofi iPhone laa bëgg iPhone laa bëgg sama téléphone bi commencé naa yàqu ma man ak Seydou Sofi ba mag Seydou iPhone la ñu bëgg Sofi ba social Sofi ba iPhone daal laa bëgg iPhone iPhone 13 mbaa 14 mag ndax téléphone bi commencé naa planté wu ndax social bee tax kon yéen ñi kon bi yow. mooy ku faral mais kër da mais daa mel ne kër yi ñoo commencé dominer waa Modou Lo sama yaram ñu bëgg tàng ana ñu faral Modou Lo def leen loxo yi ma gis ku faral Ama Baldé defal kër ku faral Modou Lo defal loxo kër yi bari na de. ma nga parcelle moo ko amul Saliou. unité 10 la. waaye dëkk boobu mooy dëkku say ñebe. dëkk amoo say ñebe say ñebe fa la dëkk. waaye yaa ma koy wax. say fa la dëkk. boobu la fa la bu Sadio. Fadel fo après combat bi nga ñam say ñebe. loolu ma def say taal na réew moomu. wala dégg. say ñebe bu unité ñebe. mais Modou Lo Modou Lo Modou Lo ba muy ba muy ba muy bëree trente mille fa la daan fa la daan reeree di fa ndékkee. daal lekk ndame ba. waaye say fa la dëkk. say ñebe. oh say kañ xam naa ne toogul taxawul fi mu toll nii. awa ama fii walaay awa ama waaw. bëgg daa mit. xor daa mit. na interdit mooy capitale Parcelles Assainies. ah bon. walaay nag tey dañuy kiñ jël diis la ci ñoom wala. ak loo ci mën di am daal mooy. Ah. mooy li ma bi bëddul. maa ngi sàcc wax la combat bu kaw la. mais Fadel. man daal ku ne la moo mën ci combat bi day wax lu ko neex rek. dafa teg arbitre bi waaw waaw vigilant ñaari mbër ay jiite lañu. Ama Baldé jiite la Modou. ndax rëpp mën na fa am. rëpp mën na am mën na fa am. seddoo jël mën na am jël. lu ne mën na am na am ci combat bi. su ma sañoon tey si tor moo koy arbitre. wallaay waaw. si tor la di. parfois nag il a tort. waaye nag fii il faut mu ndax il faut ñu teg ku mel ne Malick ci wetam. Malick Malick man attan bis. waaw Malick maa maa ci am seen Modou Lo. Mhm. rek bis bu mag. bés bu mag bés bu koy arbitré. borom gaa yi jëla ana ana waa kër Modou Lo ana fay. waaw daa mel ne waa ñoo commencé demee ndax kër yëpp ana waa kër Modou Lo yi ana waa kër Modou xarañ Lo yi le roi ku faral Modou Lo defal ma loxo faral Ama Baldé defal ma kër mais daa mel ne kër yee commencé demee boo demee parcelle na nga fees del du nuyu sëñ sama rakk nekk ba France sëñ Mbacke maa ngi lay nuyu sëñ Mbacke bëgg lool Ama Baldé bëgg Boy Niang sëñ Mbacke maa ngi lay nuyu ah di nuyu Fall borom Napoli di nuyu Coro Niang Atta sama rakk ji Issa Laye maa ngi lay nuyu ah Aliak ma xam ma jëye sama rakk ji bopp ji Issa nuyu naa la El Hadj xoolal ngay sa baay Ajaratu Jaw Mbaay mooy sa waaye sëñ Mbacke maa ngi lay nuyu ah Ndey Fall booy sa yaay nga baax lool sëñ Mbacke. sa baay ba la ñu jooy ca noppeegu du sëñ Mbàkke sama rakk